Gilbert Samb Baye Fallou président Macky nekk mandataire u centre de vote Mary Kairé Diaw waaw euh, li fi am bi nga ñëwee teg nga si sa bët euh, d'abord ñun ak waa euh, commune électorale bu centre de vote Mary bi yëpp démb si guddi bi ñu paree réunion dañoo jël initiative pour sécurité sécuriser centre bi dem am nañu fanaan si permanence bi dem am njortoon nañu ay auto di fi jaabante tey bi ñu xëyee ñun ñoo fi nekkandoo woon ak grand Alioune Badara Diagne ak waa comité bi lépp comme ñun góor ñi tey la ajuma ñu demoon julli ji bi ñëw bay jéggi lañ gis oto 4 x bu ñuul euh, taxaw si bunt école bi ak beneen oto li attiré suñu attention mooy dañ see taf euh, coalition Idy 2019 biñ leen yooxoo daw parce que ñun ak ñoom kenn amul droit si biir centre bi fii bi bisu élection biñ leen yooxoo ñu daw ki wàccoon si oto bi doon dugg si école bi bi muy daw ak bagage yi mu yoroon si la waddal mbuus moomu mbuus bi ñu ñëwee tiim ko comme ay mbira si nekk ñu ragal kaa laal ragal see saw mais bi nga ñëwee filmer nga ko mu am ay bopp ginaar am ay puso am ay euh, guro euh, heureusement suñu grand bi dëkk fii muy nitu diine muy nitu alxuraan moo doon jàng xasaayit di si kanamu liggéey bu bon bi nga xamante ni moom la Idrissa ak waa këram di def euh, jàng na tojtal na ko def nañ ko si foos bi mais juste rek di attirer attention wu nit ñi tey jii Idrissa dem na ba nga xamante ni amatul électorat te jàpp na ni pert na centre de vote Mary Kairé parce que leader yi nga xamante ni dugg nañ fi jàpp gi ñu jàpp si liggéey bi population ran leen wan ko ginnaaw yeew xam ni Idi daf leen doon nax xam ne Idi lañ doon ànd moom du lu naturel moo tax ñoom ñëpp wan ginnaaw bi mu demee nag ba amatul fu mu jëm léegi si mystique la nekk tey jii xeetu ñaawteef bi sa doon def waa Mary Kayre Diaw waa ranu leen ñoo doon dugg di voté lu ne mënoon na leen see dal Idi nag tiit gi mu tiit xam ne perte na Sénégal su seen centre de vote bi moom la dese pour gagner ko mais tiit na ba nga xamante ni mystique rek moo ko dese kon ñun damay lancer appel les leaders ñu gersu gën a sécuriser centre de bi di Malick parce que amul kenn ku am poste na poste nominatif ku dëkk si koñ bi mais Idrissa aussi na xam ne moom ak waa këram suñu bakken lañ ko ngàll école bi muy tey muy suba muy guddi muy naaj duñu nangu kenn dugg fi te duñ ko may benn yoon muy suul ay gàllaajam Idrissa Seck gàllaaj la dese yéen a ko gisandoo waa Sénégal coalition bi mu àndal maire bi nga xamante ne moom moo moom la oto méngoog oto bi fi ñëwoon muy le maire Aline Sow fii képp ku fi dugg da nga ñuy rey wala ñu rey la suñu bakkan lañ ko jox bañ ñu si dara Macky daf fee def leader yi ànd ak Macky def si koñ bi kon ñun du ñu nangu benn yoon ranu leen ñoo wan Idrissa ginnaaw ranu leen la seeni doom nekk si biir APR biir Benno Bokk Yaakaar ñuy soutenir seeni doom te dañoo taxaw tem pour gagner gàllaaj gu bon gi nga xamante ni Idrissa ak waa këram ñoom ñoo ko fi in ñëpp teg si seen bët ñun nañu rey ba pare soog fee mën a suul gàllaaj Idi nag demul proximité parce que amul bilan demul proximité parce que amul benn projet futur bu mu mën a wax waa leen li mu mën mooy di liggéey ran leen di leen mystique pour ñu vooteel ko lool moo dul jàll teg nañ suñu bakkan fii incha allah au soir du 24 Benno Bokk Yaakaar moo fiy gagné. idi mystique gam doon def toj na def nañ ko si foos te tey la ñu gën a taxaw tem heure bu ñu ñëwee dinañ fi fekk Alioune dina jël suñu bakken wala Idrissa mi koy yabal jël suñu bakken soo ko dugg si centre d'offre di suul si seen gàllaaj 4-4 bu ñuul bi nga xamante ne dafa fee taxaw dafa nuroog 4-4 bi nga xamante ne moom la Alioune Sow di yor si campagne bi gisuñu kanamam mais ñoom ñoom yi neen la coalition Idy 2019 la ñu taf si oto bi muy 4-4 bu ñuul ak L200 bu xaw a giri bi te biñ leen dàqee nii la ñu jaar yoonu place de France bi daw kon am na loo xamante ni ran leen ñoo jug tem te nit ñee ngi añ ba pare gën taxaw fii en masse am na loo xam ne duñ ko nangu ñoom la idée dem ba jaaxle daaw sangoo na si biir école yi taal si biir école yi daaw rek du lu ñuy fàttali daaw yàggul fii la ñëwoon pour suul ay gàllaajam man mii dóor nañ ma si dóor si ñeneen ak ñeneen am na loo xamante nag dañu ko nangu suñu bakkan lañ si teg fii ay Baye Fall la fi nekk ay Baye Fallu Macky ay Baye Fallu Thiès ñoo fi nekk ay baay Fallu Pape Siré Dia ay Baye Fallu docteur Ndiaye responsable yëpp coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo taxaw tem ñoom la seen gàllaaj toj na ñu ngi leen xaar nag avec de ak de pieds fermes bi ñu duggee gardien bi dégg na bruit bi génn mais nee na jot ñoo dugg élection la ñuy wax bilan la ñuy voté projet futur la ñuy voté bilan bi fi Macky teg Idi mënu kaa teg amul projet bi président Macky am gallaaj la dese fii newuñu équipe bu nawetaan avenir du Sénégal lañ teg amul ay xon amul xonjam